asalaamaaleykum mbokk yi kon tey la alxames ñetti fan ci weeru digg ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru see ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñetti fan nag dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon am na luñ ciy tere tere ak wattandiku mooy lu mel ne ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca takk ab say wala ku ca yeggale wala ku ca sanc kër wala ku ca tàmbali dara ak yu mel na ñoom ñaanuk bis bi yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci dañu sa xéewal ak soppiku sa jàmm ak bettu sa mbugal ak mbolem say mer allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tu'awilu 'afiyatika wa fujati niqmatika wa jami'i sa'atik hadithu bisbi bi nañ ci abdullah ibn umar yàlla len sunu borom dole gërëm mu wax ne bokon na ci ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك